jas na pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na yow number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndax ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye fàttewuñ fa diw yi sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa andi cuuraay cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo Quality Jasna si 250 01 24 ak Quality na taaral sa bopp taaral sa néeg waaye bégal sa alaaji aas assalamualaikum Gambia comme nous leen ko faral di defee tey waa Gambian Talents TV de ñëw ci bitch bi pour lan ñu xol wa Gambia xol tay bitch bi Palma bitch nag mi ngi saf rap. Gambia Minister of Chefe mi control all breast out. golo bu jigen ak bu gor nak lañ ko di ci English. golo bu lan bu jigen ak bu gor man golo an man golo rek. golo golo bu jigen <laughs> golo bu gor ni ko di ci English. boy ñi nga dégg si Efide ñu ngi dox boy aw boy lacee ñi fa ñi fuñ jugee boy Efide ma ngi ko te xaalis boy ñii di ma bañoo boy boy ñii di ma gis Efide bañ. ama foosit moi man a cukuree seen góob ponti ama foosit waaw daa bro daa gama daa gaa waaw waaw. gëli gëli. mel la bul xool. xipil xipil. wala gars yi ana doo xool. ana doo xool. laaj leen ma lu ma daa keesalaw be ba. ay lu ma daa keesalaw be ba. ñett xuuru bopp ak xuuru tuun mooma daa keesa law ca maa ngi rab Gambian Talents TV fii jàkkaloo benn gel dafa mel ne dama ko nopp jaral nga ma toog si gaz ba sama ginnaaw ñaas li ma am jël ko jox la sama yaay sax du kaas xol bi mësu am borom mais tey yaa ko moom yaa tax may yokk joom bëgg doon sa baay doom Wow, Gambia comme nuñ ko daan defee man la seen soppe Fatou Diouf ñu ngi nii nag Palma Beach di nar a def tey lu toj nar a dugg si biir waxtaan ak gars yi <laughs> laaj leen lu waral ñu ñëw si bij bi. <laughs> waaw gis nga Gambia gars yi dañ bëgg a bij parce que bij fii nii boo waxala dara nag dafa neex de dafa am yeneen coppe yu mool xale yu mool kare bare mu faa waa ak mbër yi waaw man mbër la dama. waaw kay kay kay yow noo tudd man maa ngi tudd Abdourahmane Abdourahmane yow lu waral tey sa teewaay fii si biir bi. waaw damaa kontaan tey quoi. lan nga lan moo tax nga romb place nga ñëw tey Palma. waaw tey Popin holiday la. Popin holiday la waaw tey Popin holiday la. teel ne tey Popin <laughs> kii toj na fi mu ne tey Popin holiday la kon ñu dugg si ñu xool tey lu mu doon que kii mu ne Popin holiday la moo ñu ko ñu ko yëgal let's go. <laughs> asalaamaaleykum oncle bu nees na nga tudd. waaleykum salaam oncle bi mu ngi tudd Iboy. <laughs> tey lu waraloon nga sa teewaay fii si bi. waaw tey moom dama toog xam nga gëj a gisante suma booy ma ne bàyyi ñu doxante si bij bi <laughs> ñëw am suñu boppam nees rek. maanaam ñëw bëggee. waaw ah ana seen jaaxay tey àndu leen seen jaaxa wala. non non non na jaaxay nag. wala yéen borom jabar ngeen kilifa ngeen. non man man am benn. na ah loolu baax na trop wala si ba ngay soxna si di non last week la ñëwoon way this week mom dafa nova la ah loolu amna solo wa uncle amna question mo la bëgga laaj ah golo golo bu jigen ak bu goor naka lañ ko déwé ci si english golo bu jigen ak bu góor ah non how ma nag amuloo déedéet man sa xawmu do ma wax non xaw ma ko diga what if uncle bi mu wax uncle golo bu jigen ak bu goor ah mo xana may na female a female monkey and a male monkey lo rek la ci xam. ma la ci bene oncle bi oncle golo bu jigen ak golo bu góor naka lañ ko dewe waaw comme saa lum na waxe rek bi female one and male one rek. Ah, yeah noonu la yo yo oolu nga ne non la. no man suma on gis-gis you know. really. yeah. Ah! <laughs> Minister of chefe mi ngi ni Gambia minister of chefe mi ngi ni control all breast art. minister of Chepe minister of Chepe lan ngay ut si bij bi. non xoog ma ba pare ñu doog kon. dee da nga ma woo lan ngay ut si bij. no you have to hug me before I talk. you have to tell me before I hug. no no no you have to hug me before I talk. minister of Chepe mu ne du wax Gambia. amee control amee minister of Chepe. if you wanna ask me you have to hug me okay. okay you you if not that I'm sorry. bàyyi ma nangu ko rek minister of Chepe. come on yeah you have to hug me also. waa minister of kii suma la wax ma loo fi indi lu la indi si bij bi. okay I'm just coming here to control my role. I'm a minister of Chepe di control all breast out jumbo out. bin bin out, poach out. so I have right to come here, okay? I don't want to see any breast out here or any bin bin out or any jumbo out or any poach out. of nga gis nga Palma fu Yeah, here is my area. I know a lot of lot of Chepe just coming here to doing breast out and jumbo out, bin bin out. That's why I choose this area. control nga Ah, yes, yes, I was controlling. Amna solo ñu dem. Auntie jaamur naam sista jaamur noo da? Aisha. Aisha. man maay jaaxi Moussa Jinne bi bil. ah Ken. Hmm. Lol nee naa dégg Moussa eh bu nga ñew ba fi introduce lo may. Wa, Auntie waa man may jabaram ya ngi lu wara lon sa taxaway ci bij bi tay. xam nga rek ñew doxantu ba pare ñewon am lu ndaw luñ don at. Hmm. ñu ne nañ ñew ci bij bi parce que foog nañ ne fi modi main area bo xamantene comme nit ñi dinañ fi mëna dajé di nga mëna amanté ak nit ñi understand nga ba pare di nga mëna change timit am bër léegi dama am benn question bu ma la bëgg a laaj. golo bu jigéen ak bu góor naka lañ ko dee waxee si english. golo bu lan bu jigéen ak bu góor. maan golo an fu maan golo rek ñàpp sa ñàpp kese. <laughs> yow kontaan naa si yow yow ndaanaan nga ñu dem si kanam. maa ko xam maa xam. kaa dem maa ngi gis tey cëppe yu nice anti jàmbur salaamaaleykum te suma anti oncle laa ñëw suñ bañé sama dama leen di interview oncle mana wala interview by force anti anti ma interview oncle mu anti bu nice noo tudda man Adama Diallo ah sa sant bi neex na rek tuuti nga ma anti Diallo lu waraloon sa toogaay fii si ah dañoo soma rek comme xale yi rek. ah kenn ñu ne lan soma teem ku somwut moo mi ngi soma <laughs> léegi lu waral nga gis bi ci yëpp nga ñëw ba fii toog fi di fi féexlu. Ah, dama xam ne fii moo gën a fi happiness bi fii la nekk ah. ambiance bu amul fenn ñëpp fii dañoo ñëw pelloo xam nga nan daa xos baana famille bi ñëw fii enjoy rek. ah loolu neex na dama amoon benn question la bëgg a laaj golo bu jigéen ak bu góor naka lañ ko defee si English. golo bu la. golo bu jigen ak golo bu <laughs> fogu lo nga jappale ma ah, man munuma moo tax laaj la tey dem ba ci kanam ba xam ah, waaw kon mu ne ñu dem ba ci kanam ñu peeloo fa anti bi mi ngay lekk chicken chicken anti chicken chickino dama ko jël <laughs> anti dama la jël anti taxawal dama la jël anti deene du ma la baalal gambia anti bi mu ne moo bañ ay gambia amna anti bu nice bu set hello alors baalal leen ma dama leen a interview Baye Force. man ñeme ma caméra man man dama dama la interview. Bro, taxaw waxu mu baalal ma encore. balal. leen ma taxaw leen. ok waaw bëgguma mu feeñ bu du fe tuuti rek caméra ba jël ko tuuti tuuti. mu ne tuuti. kon oncle bi laay jël. ah bro turbi? bi. Starway. ah Starway ana yow woykat nga. yaa. naka doo ñu may benn bib. damaa fay. may ñu rek. man du ma dee joxe firi. may ñu ko. man du ma dee joxe firi. may bu ragalul gars yi àllaa a nga. <laughs> bu ragalul may ñu ko Starboy. loo bëgg a ma may la ma bëgg a. ñu wut def rek boo xalaat rek. man du ma wéy dama laa sonal. waaw noo tudd nga ne sax Starboy. yaa lu waraloon nga ñëw si bij bi fii tey. Um, dama ñëw am suma boppam rek man ak suma boy si xam nga comme soma thème la ni xam nga so ñu def ko mu ne Yeah, yeah, yaa ngi so sa soma. eh am somarin may soma. ñoom ñoo soma wut yow yaa ngi soma. Yeah, i am somarin. ah am na question moo la bëgg a laaj. golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko defee si English. golo golo bu jigéen ak <laughs> golo bu ni ko defee si English. <laughs> I'm stupid. I can say like. Nah, um, nobody is stupid here. Nah, We're just like, doing fun. It's summertime. Hello, come on. How, could I say that? Uh, but <laughs> wait, I'm not a male monkey. <laughs> mu ne meer moo ki la ala ki rapa la yow booy santel bi nice na de jëla ma ndelam bi ndelam bi ki ndelam bi dafa nice dafa ñu ne xaritam bi ñu ne dafa def si intelligent ok xaaral ma ñëw jël la yow naka nga tudd ah? man Ousseynou ah Ousseynou noo sant ah? Diallo Ousseynou lan moo la isi si bij bi tey xanaa ñëw pati kontaan ñu bi waat xanaa ki sa jaaxalandoo bi neex na de lan moo la isi si bij bi tey xanaa ñëw toog pati nibi kon xalé itam dañu soma waaw xalé itam dañ dé soma waaw you are somari yo soma les question mo la bëgg laaj golo bu jigen ak golo bu gor naka lañ ko déwé ci golo bu gor bi ñu ko wa ki gal ki gor ay golo bu gor bi ñu ko wa white man mm-hmm. bu mo ngi bu jigen mi gañ ñu ko wa Bu fatana da wa black monkey black tatu leen <laughs> Gambia xale ñu ne golo bu jigéen white monkey golo bu góor black monkey comment leen avant daan waa dëgg la de dëgg la ku fi mun a raam ku fi mun a raam xaale xaare dafa raam dafa raam waa xaare xaaral waa pousse leen pousse leen aski aski aca mee ko raam ñu boy ñi nga dégg si FD ñu ngi dox boy aw boy la cee ñi fa ñi fuñ jógee boy FD ma ngi ko te xaalis boy ñi di ma gis FD bañ boy jigéen ma gis ma ba ñu dem ñu dem ñu dem non te xale yi xale ñom té duñ ko bayé ben mag ñom dañuy soma bo leen soma wut sax ñom dañuy soma am nañu fi train man dama leen interview bay force. ku bañ ku bëgg man danaa la interview alaykum dama leen interview bay force. taxaw leen oncle bu nees noo man Samba la tuda Samba yow lu la waralon sa taxaway fi ci bit bi tay ah dama defar yaram rek dama defar yaram lan mo kuru kara si yaram bi bang koy defarat no dara yaawul way xanga sometimes nga look nice is better bëggooj foofu toj na dama la amaloon question ah golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko si english naka lañ ko dee waxee si english non man dewuma school demloo school man sa dewuma school trial rek non non man golo kay lu ko xam monki jeex na loolu xam golo monki rek nga si am waaw boobu am na solo ñu ñëw si angul bi angul tur bi ma Idrissa ba Idrissa ñu mm-hmm. sa bi bi comme training rek jël air condition lan moo tax nga bàyyi bi ci yëpp ñëw Palma pour train. Ah, jos foofu moo ma nee rek. fii moo la nee. waaw ah ko wax ne fa la xale bëri du ma ko laal kaay jëlal allo allo <laughs> yow nga lan wax li nga wax dellu si. non ma dégguma question bi de. li nga wax dellu si. ma ne dégguma question bi. <laughs> kii lu mu wax maa koy nettali mu ne Palma fii la xale loolu moo waral moom ñu ñëw Palma dégg am suma question moy golo bu jigéen ak golo bu góor lañ ko dee ci English. golo bu góor. ak golo bu jigéen ak golo bu jigéen lañ ko wé ci English. monkey man monkey woman. <laughs> no no ki toj na ne monkey man ak monkey woman so kala. jigen ak gor mun ko wari. monkey nice monkey gal. kan moy monkey nice kay kay kay kay wax moko fi monkey nice. kan mooy Monkey Nice. Monkey moo nekk wala jigéen bi Monkey Good moo nekk góor bi. it shock me let's go ñu dem si biir. ani capes couples ani couples capes. ñu dem. ñu ñu ngi pati yan. may ma ebe dama leeka nsong ebe o inte ba domoro dama leeka gaa ñu ngi lekk ebe nag. Kaama ñëw si anti yu nay si. oui Gambie ñu maaru. maa ngi. waaw dama la interview day fo. dama ko interview mu ne déedéet jël leen ko Gambie jël leen kanamam bi mu ne du interview mu ne du jël mu ne du nangu mu ne du nangu gaa yi ngeen nëbbatu gaa yi ngeen nëbbatu yéen noo tudda Sira. xel leen ko mi ngay daw mu ne moo ñemewut caméra sir ak sa tour bu neex bi noo da nga ne. Sira Sira. Sira luy won sa taxaway fi si bij bi tey. <laughs> ñoo fi lu xana su reetaane ma ree ñu toog ree ñu siiñ. <laughs> nga ne da nga ñëw lu tax àndaloo sa alaaji as. <laughs> ah nga ana sa li tamit sa xarit yi loolu tam dara nekku ci di. Ah. kon maanaam you guys are so marine. waaw ñu ngi soo ma tëdd am dama la amaloon question golo bu jigéen ak golo bu góor rek lañ ko English naka lañ ko demee si English yow dama jàppale golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko demee si man Sénégal laa jógee dégguma English ma lakkal ko si français naka lañ ko si français sax la 16 la 16 jigéen la 16 góor qu'est-ce que quest golo golo waaye yow nga golo rek ya, ne golo ah amul am na ñu fi wax ne ñu fi wax ne white monkey ñi naan black monkey moo jaaxal de ak tamit noonu lañ fay demee ñu dem si kanam seetaanaat ñeneen am nañ fi ay bad boys borom kaab bi ma saja kaabam bi su bëggee mu beñ wala ko koo jël man maa sol kaaba ma sol ñaar salaamaaleykum baale ma ngeen fay seen mesure bi dafa nekk couperet oncle bu ne oncle noo Sang Paul ah Sang Paul Sang Paul lii mënuma koo laaka xanaa kii China sa la sang pong ah, la tudda ñaari tur la am sang pol Sangpol ok Sangpol la moo kon sa taxaway tay si bij bi suma taxaway pour la the reason yo nga ñëw tay si bi ah pour enjoy e wéda bi rek pour enjoy e wéda bi xanaa amuloo cebe ana son bi lu an aana laa oh amoo cebe make I remove this mu amu cebe ok dama la amal question golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko dee waxee sëy. golo bu Wah, dafa tàngale. loolu tàngut. waxaati sa question. golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko dee waxee si english. non xaw ma de. xaaral ma dem borom mbaxane bi. oncle kon du ma la delloo bi duma kuluma kuluma xam ma delloo ko mbaxane kuuluma naka nga tudd. Ablaye Ablaye. Ablaye Ablaye loo sant. Kamara Kamara. lan moo nekk de reason nga ñëw tey si bëj bi. ah pour am fun rek. pour am fun ak make new friends. make waaye yow nga bàyyi bëj yëpp nga ñëw Palma. ah dama yàgg Palma tamit xam nga te most of my friends xam nga side bi la guys mm, so am naa la question golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko dee waxee English. <laughs> non xaw ma nag dëgg yow kay kay kii moom pël la kay kay kay kay kii kii is fula mu ne fula maa bay you fula kay fii lii laawa dama ko interview ba fos taxawal what is your name noo man Mamadou Diallo xal ko la mu ne la <laughs> Mamadou Diallo la wala lan moo bi nga ñëw tey si bit bi xam am phone am xam

am na ma fi gis suma anti suma anti yaa ngi fi ah waaye dama leen a interview bay force. asalaamaaleykum dama leen a interview bay force. na def. waaw. tudda. Mohamed. Mohamed. noo santa Cissé. Mohamed lan moo nekk tey sa teewaay tey si suma teewaay. soo dama gëj a génn rek. soo tey waaw tey. nga ñëw happiness. nga ànd soxna bi. ah keñ anti xool ma fii caméra baa lay jël looy daw res. looy daw res noo tudda man non, non, lo non, non, ah? dum non, amilet non, na inata non, bi bi nata chil rek pour ka chil camera jibe camera jibe pour chil ni ila alaji as non, wo wo beti non, non, am unko dama la bëgg laaj golo bu jigen ak golo bu non, naka lañ ko non, non, english non man xawma non, non, ci english nak non, non ah it's not a problem so non, yena xalé yu ma non, di pitu non, nele dama non, jël ngay daw di gaa ñi ngee daw amna oncle bu tok fele xala mu ne ma la may rasal xamu ne ma ragaluma lolu ma ragaluma lolu man ko ma rasal sa ragaluma lolu oncle nota da man amadou la tuda no santa Diallo you see man kii mo papa la way santam bi rek ma neexut moy wax bi man ana polax si ala polak séeréer santam bi rek ma fa safut man oncle lan ma nek sa teway tay si bi non man man sosé la gana mun nak munatara ina ta video bi alhamdulillah jos dan ko doron kana jan kana bolo bondi nyokono no dama wada man ne wala nam jam bi ya fi lako soko be boring kay iko mbatu ina jang very very boring indeed so wala nan ko bi abula nga futa jang dan ko doron you know ngam no bolo bondi nyokono you know ngab nga ventilation no fanana enjoyment of na mira ibas ila soma somaren aha ha ha golo bu jigen ak golo bu gor lañ ko dewe ci english Hah? no that that that question is above me Action is above him. Yeah, yeah. Oh go and watch. It's on YouTube. Yeah, Gambian Talents TV. Gambian? Talents TV. Lan mooy xew moo fi xew di yéen. man maa bëre. ñoom man oncle yi rasta yi moo man ne. oncle yi rasta yi rek ma ne salaamaaleykum. oncle yi nice. man ma leen a interview by force. Assalamualaikum, oncle noo tudd. man Rasta. Rastafari bomboro beere aragera naka la moom bari yóbbu wala. ah oncle lu doon sa taxawaay tey si bij bi. ñun de moom amuñu fi fii du suñuy tànk bëriwuñu fi tànk sax dañoo ñëwoon pour. changer waaw jë pour jë. xakkeñ mu ne moom dafa ñëw changer air loolu am solo oncle golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko de waxee si angale. non oncle déggul angale. waaw wax ñu ko français. déggul français. <laughs> boo dégg. xanaa ni nga ko waxee golo. <laughs> oncle bi nee na golo golo la rek <laughs> oncle oncle Rasta tur. non baal ma jox ah eh, man dama koy jël jël leen. suuf leen ko non joxal sa waay non joxal sa waay non tur bi. Jibril. ah Jibril. ah sa tour bi neex mom Jibril la tudd lan mo non sa taxaway tay ci bëj bi. ah dañoo ñëwoon pour changer air rek. mu ne dafa changer air amin mu ngi soowa et samarin lolu neex na encore golo bu jigen ak golo bu góor nak lañ ko dee ci English. ci olof da laa ko dégg. naka nga ko xamee si olof. golo ni nga ko woyé ya, rek wa waxuma lolé dama dem ci Ibadu yi Ibadu Rahman gañu ñu ngi daw di lu kat gis. gaa yi ngay daw jàpp naa ko <laughs> Ibadou taxawal taxawal waxuma loolu de Ibadou sax ñooñu ñoom dañu ñoo sooma di sooma ren waxuma loolu de seen fale anti yu anti bu daw bu daw anti bi yi <laughs> daw leen di noo tudd Ibrahima ki daf leen duroo kii nii ku nekk si théâtre sénégalais bi what fàtte naa ko kay noo tudd Ibrahima Ibrahima foo dëkk London lu tax nga ñëw si bij bi waaw ah, ana til lekk ah pour chill Ibrahima mu mi ngi sooma mu ne rek naka doo ñu may benn rap <laughs> Ibrahima tee na mic bi ki I'm a it one when I took on it. I'm going punch I'm a faucet, one down, bro, dog. Come on, down, go, <laughs> No, Ibrahima. Ibrahima, we get I'm Hold on, go on. You happy boy? No, Ibrahima is rapping. This is good. Can you? I'm not anti. You make sad feeling. Auntie. Auntie is Ruslo in me. Look at this. Ganyu ma Ruslo. Gambia. Look at. Nyinge daw. Lola na daw. ok ñu dem garaawut man man mun naa muñ loolu man mun naa muñ loolu ragaluma loolu xale ñuy di daw lay di daw xaama yal oncle ko moom lay ñëw xaay oncle bu nees man ma nopp oncle sax <laughs> xale gaay di ma xee looy ne xee ma leen naa interview ngeen di daw ma interview oncle ñu naan ma xee man ma ko nopp de Uncle turbi bi Boubacar kan, Diallo ah uncle lu waraloon sa teewaay tey si bit bi um, uh, usually man suma ñëw nak nag but bo presently dama am defect suma tànka bi suma loxo bi so dama lay ñëw di exercise si fii te si benn site so maa ñëw mana ini naa family, famille bi yëpp ñi la doon daw noonu yëpp si lañ bokka daawal my family mm, uh, that's right um, uncle dama am question golo bu jigen ak golo bu góor nak lañ ko dewee si english um, monkey rek la monkey monkey la rek they are all monkeys I mean monkey is monkey am na ñu ma white monkey ñu naan ma black monkey whatever uncle already hit it <laughs> uncle kon maanaam tey ma ne ngeen ci ngeen ma nii. ndax ñu bett rek waaye li ko doon invite la. Ah, comme naa la next time dinaa ñëw ngeen invite ma. ok thank you ñu dem si kanam am na ñu nataal dama nataalu. gëllaa gëllaa gëllaa. ma ni nataalu naa gëllaa gëllaa ay eh, gëllaa gëllaa na ngeen def ñi dem nice de eh, ay jaaxal bi musuma ko gis taxawal xool ko mi daw yéen a ngi tudd Ahmed Gueye. Ahmed Gueye. Ahmed Gueye. from eh, lu woon sa taxawaay si bij bi. waa dañoo ñëw rek pour xool géej gi nu mu fa demee rek xam nga waaw xam nga léegi ngeen bàyyi géej bi yëpp ñëw fii waa xam nga soo xoolee Gambia fii bij yi bëri nañ fi ma moo di bés bij maanaam dafa xumbuta dagan xumbuta dagan da ngay gis lu nekk gis gel yu baax yi. baal sa xel de. maa gel yu baax si gel yi gel yi. bul xool. <laughs> xippil xippil. Oligay xanaa doo doo xool xippil waaw dama la amaloon question golo bu jigéen ak golo bu góor nu ko defee si angale. golo bu jigéen ak golo bu góor. woy suma ndey. laa ilaa. sa ndey sa ah? yii bro lii du ma ko laal si sa. golo bu jigéen. golo bu góor di stress yi. angale bu ko si français léegi. non angale nag ñun moom xam nga ñun moom daanaka doomu géwél ci dara wuy ma anglais ñun moom daanaka moom mooy loolu français. woy ñuy woyal tey ñu woy woy woy. lalal ko non gëwël mun woy nag. mais ñu benn mais ñu benn noo tudd man Fatou Diouf. xoolal Fatou. te ma woy la Talents TV. woy la wane woy la maa ko man xoolal ci góobe gar ndax dinaa la woy xoolal woy ma Titi woy ma Viviane Fatou yow lay woyal xoolal. <laughs> non ma dama imposté de ma woy de waa ki li muy <laughs> ayla no it's going meaning da nga bëgg rap ka nga meñu rap rabal da nga jangan sa sispati ediga eh, togal fof digas nga sa kanam fas mané nga di gain sa hol te do si de mas. mas a man boy a man boy a smoke boy a healthy hey, eh, eh, yow naka nga tudda lamin wala mi mën nga way de kula jangal ken Kamu ne sa best artist Jisul. Hey, meñu bena woyen Justru mau wéyam de. mënoo wéyam man artiste nga mën Ken, kenn. really. so lu tax nga ñëw tey si bij bi. kii yaay moom moo ñu ñu ñu fee ana anu leen ana ana bi ana anu la seen doo bi. seen bi lagi génn. Ah. really. hey hey hey hey hey, tahu len tahu len tahu len, mana yang tahu? paree ni dem yéen su ma paree naa ñëw si yéen nga defar sa rasta yi maa la gën a mën a rasta am loolu xay doo ñëw yow doo ñëw fooy dem xay mi ngay dem di affaire am la mais ñëw encore ñu nay si na ngeen def baaxul de baax la ma yow laay njëkk a laaj non non laajte sama boor yow laay njëkk a interview yow laay njëkk a interview yow noo tudd man maa ngi tudd Mohamed Mohamed Mohamed lu nekkon sa taxaway tay ci bit bi ah man tay dama ñewon fi am fon rek ya am fon yeah maanaam you summering your stoma yeah yeah man ko no ko ana lo ben ndori ana ana sa ndobi nak tay boy moy lolu boy may xawa fin man xam nga bi bilay dina la wé bébé dina la bu ragal ah ah bay lolu le am golo bu jigen ak golo bu goor nak lañ ko dewé ci english golo bu jigen ak golo bu goor <laughs> no bo mom ga jigen daw jigeen jigen daw <laughs> <laughs> moom moom mënu ma koo wax naan te wax dëgg neex yàlla moom moom dama koo jégal rek. Eh. Ah. bilaay. <laughs> amuloo benn benn tur bu nekk in mind. non non non non non name. bilaay yaa ngi gis. Eh, boobu moom boobu moom affaire la ma da ngeen maa next ah. time bilaay xam nga. next time moom waaye eh, next time soo ñëwee rek naa la waxal yëpp. bu ragal loolu. let's go. oncle yi dawoon ba dinaa leen toppa gars yi dañ dawoon ba dama la naa toppa again. I mean xool ko mi ngi daw. xool ko gars ñu ngi daw really ñoo raabal dang maa raabal wala tur Ali Ali Ali waaw Ali foo dëkk Kanifing South lu tax nga tey si bi ah man lu tax ma ñëw si bi bëri na de mais wax ma si feef feef ah boy si waaw am foon mm. xam nga ñëw yooyu noonu yow sax ma ñëw si bi <laughs> <laughs> this is too chin. bu jigéen ak golo bu góor naka ko dee waxee si English. golo góor ah, man monkey rek laa si xam de. monkey monkey moo nekk góor jigéen bi naka lañ ko wooyee. ah ana nga ne. <laughs> Ah, ah, de monkey laa si xam daal. Eh. school be wàcce nag waaye question moom as ni teacher musuma ko as. CNG mosul laa wane Monkey bu góor rek la ñu ooyee Monkey bu jigéen am na tur. man yëpp Monkey laa ko xamee. man bu ñu ooyee góor ak bu jigéen. ku ko fi xam ma may la nga ñaata. ñaata 500. right bu jigéen ak Monkey bu góor naka ko defee si English ku ko am. am naa ko. am. man wax ma ko. waaw Monkey bu góor chimpanzee bu jigéen baabun baabun la baabun. bay ma noppi rek bay ay nangu leen raam waa aca danga bëgg a raam meeñu ko meeñu ko meeñu ko kuy raam meeñu ko meeñu booy bul dégg nga bul dégg nga dafa ñëw. meko meko meko ba mu. gars yi pare wu na raap ma damaa dem si borom rasta yi borom per yi salaamaaleykum oncle na nga def baaxuma de ko inti passaawutuma da ngaa taxaw taxawal dama laa interview dama laa interview na nga tudd. maa ngi kuul ba jë jërëjëf kàllaatu la kàllaatu. ma nekkoon sa taxawaay tey si No, I want you to here. in here. Now you somewhere in your summer? no, I'm not somewhere my summer because young nah, man hang up. is. I'm not interview. Very force. Very force. Well, yeah, so come smoke cabby. Ah, so, my angel Yeah, angel yeah, yeah, yeah. nga ñëw Palma. ah moo gën a jege suma seet honestly. ana ana cepe bi ana londo No no, non jabar lay xaar jabar. <laughs>

munatene e naata bijo bi nde bijo naarajane ni nabbo pour ka en ilan dookeli nan dooke non ndeman dooke soto man dooke yemune soto muso <laughs> yemune <laughs> yemune soto muso iya nga muso la soto iya muso la soto ah. Oke, golo bu jigen ak golo bu goor naka lañ ko dewe ci english ko <laughs> bi ngeen daw li ka des ana ah, kaay dem ci kanam am seen somebody ñu dem ci kanam ñu dem ci kanam so hello Gensas hello na ngeen def na ngeen di gis ma ngaa grawal doo taxaw ragal loolu taxawal taxawal taxaw ka damaa dem si moom dama ko interview bay foos na ngaa tudda da ngaa taxaw waaw doo taxaw lay daw na ngaa tudda man Demba ah Demba lu tax nga ñëw tey si bij bi te dama ñëw fii am lay xam nga maa ngi ñëw maa ngi nekk koñ koñ mi ngi slow xam nga. koñ mi ngi slow. meaning you summer in your summer. yeah. Eh. non soo gisee ma bàyyi ma bàyyi bi di yëpp ñëw fii nii xam nga fii moo dee a xumba xam nga yeneen bi ji dafay suloo xam nga loolu moo tax ma. non ba ma baral leen. non non non man ma lay raab booy. non saa la waaw kon ñu bif ñu bifante. non man ñu bifante man rawalu ma loolu son ñu bifante. <laughs> moom mel na ko ah. na waji boori. stora king day jox waji yaa ko dese li nga jaay laay maye. pariwuma <laughs> nga fi dañ fay amee artiste bu ne moom du woy Kamal am dama am question bu ma la bëgg a laaj. golo bu jigéen ak golo bu góor naka la ko demee si anglais. seet boobu moom baal leen booy boobu moom. <laughs> boobu moom dama la interview taxawal taxawal hey hey <laughs> nataalkat bi lu ngeen daw <laughs> bàyyi foofu ma naan doon hello sister you nice sister man soo demee xeeloo ma leen man ku ma xeelu ko. man ko. ma xeelu ko waaw yow na nga man Omar laa tudd. lu doon sa taxawaay tey si. léegi mic bi may taalal Ni rek. nga taxawaay tey si bëj. soo <laughs> mi ngi daw li ka gis sama taxawaay Yo la nop. Ya am tax ñu Ni ndom na la. nam nga bañ Samba Rasu. kon moom ma xol. waaw après après. non non léegi après naa la fo. Bis bis. ragal loolu yow wax ma sa taxawaay. non dag may bis. Ni dem après naa ko ragal. na ngeen def. danga ñemee leen. gisal ma ngom moom den duroo. Ah. couple bi man amoo den duro gisuloo waaw maa ko sut nag mooy wabee man <laughs> maa ko sut. yaa ma sut waaw de sista bu nees noo tudd. maa tudd Amzy Baye. ah keñ mu ne moom Amzy la tudda <laughs> Amzy la nekkoon tey sa teewaay tey si bëj bi. ah xam nga rek ñu si sooma ah because ma hobby daal. I mean everybody is doing sooma ñëpp a ngi sooma di laaji laa mi ngi sooma mu ne <laughs> loolu neex naa dégg soow lan moo tax yow nga gis bëcc yëpp soo nga choose Palma. non tey den toog rek mu naa bi xam nga ñu ne dem Palma ñu dem mm. doxantu. loolu neex naa dégg golo bu ñëw ah eh, golo bu golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko demee si English. <laughs> laaj ko dem xam nga mi ngi <laughs> ñu dem Gambia let's go Jangan bi mu ne moom du ko laaj du ma ko laaj te dinaa ko laaj maa ngi taseeg Rihanna maa ngi taseeg Rihanna ak oncle bu nees de mi ngi taxaw oncle tur bi Mohamed ay su ma ñu ndor ñu ñu mi ngi la gisul la de Mohamed la Mohamed. Mohamed ah lu don sa teewaay tey si bij bi. non dama ñow free my mind rek. La nga ñow free man ni. nga ñow soma sa soma. <laughs> Elif lan mo tax nga gis bij nga préfère pour ñëw Palma. ah Dega dega parwa parwa kay dafa nice. Palma dafa nice. waaw. ak ndoy ndoy nak. non non non non non. yow <laughs> so golobu ñu golobu jigen ak golobu bu nak nag lañ ko dee ci English. non du ma mën a. dégg nga mu ne ma bàyyi ko mu ne ma bàyyi ko amut idea about that so mi ngi noonu Gambie let's go and view something else. yaa ngi may fil maa ngi dese yeneen boy yu nice waaw man boy yu nice yi laa def ko interview xay xool ko mi ngi def dangaa taw xalal boy bu njool bi mu ne ma dafa daw kii lu dama la naa interview ba pare bu leen ragal loolu taxaw leen bu leen ragal loolu taxaw leen kon xala fan si ay araar ñu la ñoo daw yow ndax yow da man duwe yow duwe nga si da ah lu doon sa teewaay tey bij bi dama ñoo jël dama ñoo jël ngelaw ak dundal xol ak dundal xol waaw soma sax soma ini. Iya iya iya. dama naa yow raaba nga yow na nga njool de non du ma dee raaba man man nekkuma raaba yee man man good boy la dafa famous ga mais bon man xawma ko di this is crazy so lan nga am pour ñu wax ñu fii ah, nii because of yow nga bàyyi bi ci yëpp nga ñëw Palma fini. Palma moo gën a jege suma seet Daripada may ànd ak suma Batman yi wala béy mun ngaa jël suma Batman yi. ñu nekk kër ga jëlal ma Batman bi ñu ne nga jël Batman yi. Ya. waaw Batman yaa ngi golo bu jigéen ak ah, golo bu góor naka lañ ko dee waxee si English. golo bu jigéen ak ah, golo bu góor boobu benn naa ko lum. yow mooy bi dama ko jox ko bi ngay daw waaw taxaw la kay nag fii fu daw. ana ana amu ah, leen ko fi mun a raap. mun naa raap yow man maay Sultan Comedy. Sultan Kone. yee yee man comédien la ah cobolo ko nii. ah jëlee ko mu ne moom ragalul loolu moom comédien. ragal ma loolu nag. am lan nga am pour ñu fii nii because of yow da nga bi nga ñëw Palma. waaw dama ñëw seet nit yi nii xam ma jógee aw dama ñëw seet xale yi naka ngay dundee si biir bi xam nga dama digg ay bij bij nii moo ma ñëw xam nga yow seet ba nekkee nga ne. man fi laa nekkoon Hinkong. <laughs> fans Helcom. bii sanga after like after him congress or like first Johnson second Johnson. te loo si xamul man nag si next Johnson bi nii. after ah. bitigi naar ba ngaa seen noonu. ah yow laa doon gis am yow yu ni marché. ok how are you ah tuwe ah waa tuwe. waa tuwe da. waa tuwe la waa tuwe la waa tatu. golo bu ñuul ak golo golo golo bu jigéen ak golo bu góor naka la ko demee si English. golo bu jigéen golo bu jigéen ak golo bu góor. ah female female female monkey. wala nga am ko nga am. Ah, booy monki si nekk bu góor bi booy monki nga ooyee nga am femelle la. mais ñu benn raap. benn raap ma ne raapay raapatuñ liggéeyatuñ dematuñ marché fuñ dem si marché yaxanduga mais raapay jobatuñ. <laughs> Sultan Comedy mu ne raapay raapatuñ ah this is yow naka nga tudd. oh speak English what is your name. Boubacar. what is the reason you leave all these beaches and come here Palma. Palmarim. Well, actually, it's near to my house, and I think it's a quality beach. It's a quality beach. So, what is the difference between um, a monkey, the male one, and the female one? The difference is? I mean, which name can you give them? The male one and the female one. do look at me. Oh. Okay. Boy and girl. You say what? I mean boy and girl. boy and girl. You them like chicken? xale bu ñu fi amee acapella mu ne dafa dafa raap yow tur bi. man man su ceen bi seer na de ana foo jinne bi. Eh, Serekunda. Serekunda. yow noo tudd nga ne ñu bëgg a raabal. meññu ko. bilo famini se rosi ara manga fendi fendi duna na fulo moza tildan dogo tiri yarni afrika so nyantel fanyo dugu go keso fani yake so muri adogo keso ati batara bara beno di people token jama kada mikla bara fela jama token dunia am fesalo mani alba fala safaku senji wa anto han sondo ngado brigade ro brigade ro brigade sara nga rafa nga rafa dul fam fam rap <laughs> mom ne mom rap na ba pare legi man dama rabal e eh, man rap nte fatou diouf gamien talent gamien talent ha gamien talent manika fatou diouf gamien talent fatou Jif ite hanya ite abinare aka arab dinna ri arab dinna eh, gambian telen adela nyaade ali folo kuma ken keso ko la fo anything gambia dawo da ali folo fa diu adela la la mm-hmm. hey hey hey hey hey mune mom dafa rab pare let's go ni dam hey hey batman mune dam ko faté ni ni dam ci batman batman no tudda man may dura ciarno ciarno waaw ciarno lan mo ne kon sa taxaway tay ci bij bi waaw fuma taxaway fi man efrisoni dama fi de ñew mm-hmm. dama fi de ñew pour jël leer mo reason nga ñew fi ni waaw su ma ñëw fii dafa bëri nag hmm. so résine one comme léegi dama day ñëw pour jël ngelaw parce que comme toog ci kër bi dañuy mën am stress. waaw gis nañ sa ceen bi yaa fa bind faatu de xanaa sa ndoo bi faatu la. non dama xamoon ne naa dajee yow moo tax sol ceen bi ba xoolal black mu ngi maa black look at this mu ngi maa black. non dama yaakaar xam ne dinaa dajee fii yow de moo tax sol yi faatu. really. sure. am golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko dee waxee si anglais. waaw yow monkey gal, ak monkey boy la. <laughs> yàlla mu ne moom wax na yëpp de mu ne monk bi jigéen ak monk bi góor xaw ma nag Gambie you guys agree but ñu dem si kanam ñu seet ku fi a raap ku fi mun a raap. gannaaw laa tudda. yeah Assane laa tudda. Assane meññu ko. boy wala na nga ziaré ziare Capucin Fall King Baba Tiawna, ne Capucin doo ji bali na xalé yi tëri na jàmm ji jeexna man bo may jaay rew ma wala ma ndiga sa bopp la melni dama duggu jeel du join di yak sama dérese ba ma ne nga du légui té asan do do ko dégg dégg la waruma ma ñu nekk si kasse waru ñuma genn dégg nga ko ba ci biir jeel bi ñu doon tàngal sama bi rajo seef né nga ko fi nga nga ko Naki ki nga Naki artiste de Gambia jëlee leen ma kooku dafa mënu rap non yow sax meer ñu beneen meer ma raabal ma ma. ma ne maa ngi gis Fatou mi ngi sol benn maxane benn baag mi ngi yore musuwaar léegi benn mees eh, ma ne mi ngi sol daal ma nu eh. mu fa demee. am na am non man amul ragal quoi bàyyi noonu la garaaw. Eh. ajil loolu meel ñu benn raab. ah may la benn raab. sa xam na yow dana neex. Uh-huh. yow dama la gis rek daal di tiit. non boo ree damay dem quoi non réew ma kay kay kay may daas may daas laaj leen ma lu ma daa keesalaw beba ay lu ma daa keesalaw beba ñett xuru bopp ak xuru tuun moo ma daa keesalaw maa gën mënu lii. ndigalaa daan eh, man mënu lii maa gën mënu lii. ndigalaa daan eh, góor du ma daan jigéen ma may daan. góor du ma daan eh, jigéen ma may daan. ndax feer yaa. góor du ma daan jigéen ma may daan. ndax feer yaa ñëwal nga ma sali. sali sali ñëwal yow. mësal ma si balaa yaay di ñëw. <laughs> fii bij bi yëpp leen fi am am leen fi ay taasukat ay rappers like I mean everything kii mu maaxaar dafa ñu nar a rappal te lu toj meñu ko waaw man nag lan man suma raam nag si njaago la dee nekk ah. waaw man si njaago d'après man suma raam dafa am rules ak régulation amu re amu reetaan ok ñu start ah? mhm. ok yaa na tiiga na tiiga ma luka ma siga mhm. na siga na siga ma luka ma siga ma we na we na we ga ma luka ma siga ma te na te Latega moluka masiga bawanga moluka masiga masiga mawanga moluka masiga masiga matega napari nangalino napari nangalino napari napari nangalu ha ha napari nangalo napari napari nangalu kuma abin nangalu kuma kuma abin nangalu kuma abin nangalu mune mako tere nalo napari nawara wara umeri jik faje umeri bigir bagar hale bide nam ko sambal ne nako def jabar kuma amu jika kuma babu ama amu ko cha ama amu jago afu we ya, ma jago chika babu ha ma jika babu bulin kom ne kala wuguli si awoji si aluji na pa tin ti ngamu hunchi nyuwa nyinji nyinga ji wanji nyinji ah ha chi chi huwa e mu woowee bàyyi ma jël rap bi rap bi laa jël non non ñëwal yow boy yow tur bi. man maay box sama ay box sama ni jëlee ma box sama ah, am box sama ni la ma nekk tey sa teewaay tey si bij bi. kan man ñëw am fon si gars yi nii nii rek am nga delluwaat doo. la moo tax nga bàyyi bi ci yëpp nga ñëw ba Palma. yeah because fii suma place la am nga. naka la meññu ko fancy fancy meññu ko. waaw tàccu ma mel. ma mel leen freestyle bi nii ah ma mel ko nii nii ah waaw ah, baal ma ñëw baal ma ñëw baal ma ñëw baal ma jëri lix non kii ñeme wut ko non non non non jëli ko maa koy indi jëli ko ah, ah. mais filta ma indi soo loolee bëgg ma faj leen lu ma nee rek wala lu ma nee dafa doo sax ah yaa ngi Gambia Gambia nice non xoolal léegi baal ma créer relax yi ma ñëw baal ma créer ka baal ma même abi suma kër amul moto booy waaye maa fa gën a seer suma cinu gàlle mu stop oh, suma kër over neer booy ibi cin bi gis bi ndawal bi over seer gaal bi tam mu ne gaal bi tam fu ko neex mu teer balaa ka du booy bu hees Paate Mantou leetu mees su ma namoon leetu Fridana leetu lees dama ko yëgal Paate man man dama reetaan reetaan ba tuma. no man I'm tired Gambia nice Gambia nice no Palma Palma monica best bitch. ku agree with rek let's go to the comment section and ngeen wax ma man faalay wu Malen. man ragalu malen. soo bëggee nga rusloo ma waa dama interview soo bëggee nga rusloo ma wala gars mi daw. look mi ngay daw ma interview nga daw sa yeloo bi neesu da nga xam ne abal yére bi rek <laughs> kii dafa xam ne maa abal yére bi loolu moo ko interview mi daw. mais ba foofu yéen let's go let's go it's summer time it's summer time uncle bu nees na ngeen def. bàyyi leen loolu bàyyi leen di ma rusloo kaay leen kaas ma sweetie darling darling sweetie encore naka man Mohamed waaw Mohamed lan moo nekk tey sa teewaay si bëj bi dama wala non su ma ah waaye nu rawu leen di ah nu rawu leen di moo di la dóor dara suma rakk la. lan moo tax nga bàyyi bi yëpp nga ñëw Palma. Ya, ah non fii rek moo ma dee mau? loolu mau fii moo la dee nee ah golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko dee waxee si English. man mosuma dem school sax. waaw ah, ah. man sax mosuma dem da nga maa rek. waaw lu ma si xamul lan laa si mën a wax. doo ko wax si French nag. non si French sax xamuma ko. mu ne moom moo bañ. non booy kenn ku question bañ. nga ne ma. look at this xoolal la naa interview gars daw fu naa dem kii wala kii kii ceen seer la dee jina kii nekkul di jina seer ceeni ta Serekunda marché naka nga tudd Ibrahima Ibrahima Ibrahima lu tax tey nga ñëw si bij bi ah dama ñëw doxantu ni strool ñi ak sama boy maanaam yow yaa ngi sooma daal eh. yow yaa sooma ñoom ñu ngi eh. wala wala naka la dama juutan mbir bi non ñun ñëpp ñu si sooma eh. so dama am question pour laaj la golo bu jigéen ak golo bu góor naka non man maa la laaj laaj ma soo paree nga laaj ma. Ah, man xanaa ma laaj la. déedéet man dama la laaj. man jànguma sama anglais soriwul. man sa jànguma de. waaw ah, jeex na nag. waaw dama la. waaw ma ne jànguma sama anglais hola hola ne léegi da ngaa wax. déedéet loolu moom mënut a nekk comme xoolal xool ñu télé bi xool ñu ma ma ne sama anglais soriwul. man tamit ma ma ak moom yëpp jàngu daf maa jàpp. waaw bi ma la ko wax léegi. léegi ñu fexe léegi ñu fexe. nga may jaay li ma jaay métti yow nu koy waxee soo ma koy. maa la gën a métti raaba raaba ñoo ñu def bif sol bif ñu bif. yow kam kam la ma rafa la

anti bul daw oncle kaay bul dem anti bu nice naka nga tudda maa ngi tudd Roxi da nga xool caméra bi nag ak nu nga nice nii ah xool ko mi ngi dem kii fu moo dem xool ko ah ëpp na ëpp na ma leen naa interview you guys are running non man man leen tey ma jooy salaamaaleykum anti bu nice anti naka la nga ayo ayo ayo ayo ñu li ñuy daw man dama interview de mana mana ente tu ente anti bu nees anti yow bul ma rëstoo dee ici ini nak ngat dah mana Hadi ente bu jow bu ragal kan, doon sini Zambia Zambia nees ente mungkin nga kan sooma sooma am ba man bu ma ko bro bu nees kay bro nak ngat dah ay cool man Emma la yang mana la la tudda Emma Emma Emma Emma lu nanti tahu taxawaay tey tera dama ñoo ci ci jaay rafet yi comme ça ma ndoy ci ndoy ne ye comme ça ma ci eh, la ci man dama ñaaw pour ragal lo dama ñaaw ah ñaaw lo dis ma rek eh. so la mota nga bay bi ci yeb nga ñew ba ma ñew pour am fond rek pour am so la mala amal question golo bu jigen ak golo bu gor naka lañ ko ci english golo bu jigen ak golo bu gor you have the male and the female bu gor bay male bi bu jigen bay female aisho Ya. ñi info fu kon ah. five. Well, I want Dinaa ko jox surprise after xam nga because of what? Hmm. yow leeragul woon sa question bi is correct or not. correct correct. really xanaa nga meññu rap. rap <laughs> kon Gambe ñu delluwaat ci biir dafa mel mi ngi lëndëm so let's go ñu xool lu ñu kanam. Kabir Diagne wakil wala bakaram bi dama sol xamam bi naya nga tudda kamera bi Kabir Diagne xolal caméra bi na nga tudda Talent TV la wayu ligin Kabir Kabir Kabir Diagne Kabir Diagne Kabir Diagne do jaru ko caméra bi jaru ko kamera wa sala ma nek sa reason nga ñew tay ci bëtt non da dama ñew ne scroll ni rek ñu doxantu rek mëna suma ñaari prix anando yi xana analo anu sa wendo non man duma di gëna anando luta ndoy xoluñ ma boy lañu xol yeneen boy xol attraction pour yow ak golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko defee si English. moom mi ngi dem di bul wane te ambiance bi neex na lool but lan we have to go and ask the Gambians about their opinion mbay ma dem rek bu ragal loolu. jamo naka tuda mariama wa mariama mi lu oh mariama lan mana nekkon sa taxaway tay ci bëj <laughs> man sa dama lay rose gis lo ma ngay joy gaay nangul ma interview lay ñom ñep lay laaj ñom ñep wa naka nga man aminata aminata lan mo nekk sa taxaway tay ci bëj tay bij ah neh na lool enjoy na suma bobo be may ni may lekk jeun dama may am cameraman kay lekk <laughs> mi ngi mi suma cameraman yow yaa ngi sooma ñoo wut ngi am somarin yeah of course <laughs> what is the reason yow nga bàyyi bi ceeb nga palma parce que palma dafa ya. neex ba pare nit yi dañ bari xam nga waaw yeah <laughs> I have a question for you golo bu jigéen ak bu góor naka lañ ko English ah golo bu <laughs> bobo ke homo kan, golo mau jigen agak golo ugur. goor ha fuk na golo la ci sa jaba lañu golo bu jigen ak bu goor naka mom mi ngi daw Lena Gambia Gambia nice in it Kon ñu dem si bad boy si. Uncle na nga ya, def Eh ay ba Tur Araba lan mo nekkoon tey sa taw sa taxawaay tey si bij waaw ñëw rek comme nekk si bij bi ñëw tàngal yaram bi play da nga ñëw pour tàngal yaram maanaam yaram bi dafa sedd nga jug pour yëngal ko daal yeah ñun ay ah, play neex naa dégg so golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko defee si english non xaw ma non dañu jàppale tuuti rek non baal ñu wax ko golo bu góor wala golo bu jigéen rek <laughs> akul yow nag na nga def ay cool tur bi Modou Modou lan mo nekkon sa taxaway tay si bi. ah de dama ñewon ne pour doxantu ni rek doxantu nii. maanaam changer air dal changer air waaw yow gëna wa Palma dafa neex Palma dama ma ñëw damay gis sama bop lu gëna neex ci Palma. wa Palma pour ñëw ni rek doxantu ni fexal sama xol yaa gëna lo rek neex Palma ak leneen am na ñu may wax côté ci gel yi. man lo rek mo fi neex man duma côté ci gel man rek. ah legi golo bu jigen ak golo bu gor naka lañ ko dewee ci anglais. wa man nag mom man janguma janguma anglais. mais doon ñu jàppale si français jànguma jànguma français man olof olof daal laa xam. kon loola Gambia ñu dem ci biir yow nii yow damaa rus yow damaa rus <laughs> kon ñu dem ci biir anti bi daf doon daw moom la xamee leen anti ñëw anti noo tudda eh xale dinaa leen dóor de noo tudda wal di wér ma dem balaa yaayam di ma dóor ma ñemewu ma xee ma ñemewu ma xee let's go xoolal boy bi boy bi mi ma la ma xeel soo ma xeeloo ma xeelu la noo tudda awal ngay so man sama xel dama la xelu de na nga tudda oh, man tamsir la tudda ah mu man tamsir la tudda ah ok tamsir lan mo ni yow sa taxaway tay sa bi taxaway bi ah dama ñew pour dalu rek am sama boba am nga pour am sa boba la mo nekk de reason nga gis bi ci ya, nga prefer pour ñew palma palma ah pour andal sama ndo bi rek dama nekk sa ndo bi ndo <laughs> no andu man ko baye bele ah yo nak ñu wara yobu ñu gis ndo bi non baye baye rek so question la la amal golo bu jigen ak ah, golo bu go nakal ko de ci english non man duguma fi nak doo waa Europe nga wala. yeah. No, gisal america la la jëlee ko jëlee fi fu jëlal ma kala la <laughs> kala la mu ne moom dund ci fii Amine dund ci fi let's go rihana mi ngi ni rihana rihana taxawal foy dem rihana mi ngi ni na nga tudd jaawara kay man Hadi la tuddu Hadi nga tuddu adi la mu kon sa taxaway tay pour ñëw Palma No tey moom dama ñëw feexal xol rek da nga ñëw feexal xol mhm. maanaam changer air Ya ngi gis de yaa ngi gis mhm. yu samarin yot sama kenn soo la ma ni ko reason nga bàyyi bi ceeb nga préfère pour ñëw palma dama ak sama domi magi yi rek xam nga mhm. ma ma gars yi xaaral la ñu génn tuuti rek pour ñoo bégee wasa rafet na ma waaw boo rek li rasta wala rasta kay ah man aimé naa lii <laughs> golo bu jigéen ak golo bu naka lañ ko english sorry golo bu jigen ak golo bu gor naka lañ ko dee ci english english mi ngay daw di wa bu ragal Gambia let's go ñu seetaan ñeneen ñi ngay ñew am na ñuy daw am na ñu may xeelu wa faale wu ma len ma len ëpp bët am na ñu fi taxaw dama leen ay interview by force bu leen lo, kaay leen kaay leen kaay leen naka laa tudd naka laa tudd waaw yaa nu ma tudd ñun ñëpp lay làkkal fii ñëpp ay làkk naka laa tudd waaw yaa naka laa tudd si ay laka laa tudd xanaa mu amu ah dama mel ni amu gémmiñ yow nga ne loo tudd laka laka laka laka mu ne moom laka laka la tudd laka bu xam wala laka bu xamul laka bu xam bu xamul yëpp so bro la mu nekkoon tey sa taxawaay si biir waaw ñëw si tural bu xool environnement bi nu mu mel nii rek. environnement kese kese. no xool no no nothing. As of, really. swear. ok golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko defee si English. <laughs> boobu wanaa ma dii la ko de. wax ma ko wax ma ko. <laughs> <laughs> female monkey ak male monkey. moom wa soo soo moom mi ngi yónnee nit kami soo kan moo ma fi mën a raabal kan moo ñu fi mën a raabal. Ah, soo gaañu ne dañuy raab raabkat baa fi de daf ñoo raabal soo mu ne laa tàccul bu ragal loolu mee leen ko mee ko xayma naka la. Eh. non yow gars di tàccu sax. Ah, man fa olu Hey, lockdown, man, lockdown. Nigga, I'ma put you in a lockdown. I'ma ban man, go make your bitch go bust down, run down. Tita Titala make your man go upside down. Man, lockdown, balale no. Man, lockdown, balale no. No boy, do my lem balal ngane no. Big master boy, the chop same beat, bini chop a boy. Big dripper yeah, we defend the yeah. The delo say rapper if unjoge. Abula J to J. Honey more man check now, deal with the check more back and check if zando bina check man a guy yeah, do my check boy yeah. Pare pare. Mata mani dang raabal man dama ko nangu naka laa dafa di cek yéen eh, monsieur ay cek ji cek ji <laughs> daf maa raabal man tamit raabalal Fatou Diouf Gambian Talents TV raabal ma. Fatou Diouf Gambian Talents TV. ah waaw boobu nag du ma yombee noonu de foog ngeen. raabal ba pare raabal dafa war a fas dem. mais ñu ko mais ñu ko. non boobu du yombee noonu. mais ñu ko come on mais ñu ko. non du de boobu da nga naan fee ba ma boole la ko rek. ki nekkul artiste kon man moo ko bàyyi. waaw kon man ma artiste. cause drogue drogue baa ngu ma benn song. waaw waaw mais ñu rek mais ñu last bit ah, noonu rek booy. really ok Gambia let's go. wait mu ne moom ta artiste taxawal taxawal taxawal yow xam nga ne sa sweater bi maa la abaloon démb doo taxaw looy looy garaaw garaaw fii kii nga ne lii maa ko ma abaloon démb xool leen ko. yow loo tudd man dama artiste Moustapha laa tudd. Moustapha noo fi. to la mo nek reason nga ñew tay ci bej tay ah man léegi la ñew sa awma ba reason mo ma ko ci hope yo nekula di haar tan do bi ci koñ bi nga déedéet man awma ndu am la ndu so golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko dewe ci english no xawma de yéen de da ngeen so amna ay rasta amna ñu fi nek xam nga mi nga da eh xam nga la la eh da ngay taxawaay da nga taxaw eh taxawaay eh kii mi daw kii la muy daw rasta dafa am ragal lay ragal <laughs> yéen a ngi lay tudd. Siteu. Siteu Siteu bëreekat wala. waaw. nga ne. Siteu ñëw non lool. Siteu ñëw de. nga ne loolu yaa wax loolu. am la ma ni kon sa taxawaay tey si biir. ah ñëw rek bi caméra bi la daf la war a jël ñu laay kaaba yi daf ko war a bu ragal loolu taxawal nga ne lu ne doon sa taxawaay tey. ah man damaa sama gars yi rek ñëw soulager nih rek toog nii dalu nii yaa gën air di soma sa soma dal waaw lu tax nga tàmm palma gis bi jëpp nga na yow te palma nga bëgg a salam saf fi sàpp ñoo ak salaam gis li am ak gën ah man ñu ñuy wax palma sen xale yi yéen Gambie ma ana xale yu bahi palma premièrement c'est yow mi taxaw ah yow <laughs> so golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko loolu moom xaw ma ko dégg dégg wala bu jigéen ak góor xaw ma ko de. waa kii fu muy dem yow kaay. jël ko jël ko dina yow kaay. man télé bi damaa soxla heure man su ma génnee heure bi dama am combat heure bi dama am combat. moo ko ragalul loolu ok ñu ngi fa amee keneen yow noo tudd Amady Diagne. xam nga man poli ragal nga la damay bàyyi di interview poli dégg nga poli man mënu ma nekk séeréer dama fi di interview poli rek rek nga tudd Amady Diagne. Amady Diagne Ba. Amady Dieng Ba. waaw soo la ma nekk réseau nga ñëw tey si biir. dama ñëw shoot vidéo. ban vidéo dama ñëw shoot benn vidéo dama dama génne woon song ma ñëw ma ne ma ñëw shoot vidéo asuma bi mu ngi ne leen. soo léegi lan nga am pour wéyal ñu fii nii a little bit. ye uh-huh. may tëb ma niga boy léegi mu ne du ma tekki léegi su may wàññile ma si ma niga léegi xoolal fu uh-huh. nekk maa ngi siiwul ma bëgg mel bi tekki léegi xool ma hey gars ñu ngi wax léegi noppi ne boy léegi gars yi ma du ma tekki ñu ngi wax su amul nit wax ma niga may tëb niga hay wax la ñu noppi léegi wey fu nekk maa ngi siiw comme est dib nga ka léegi may tëb ma niga wax leen nga inshallah fo ñu meekoo niga moom mu ne moom artiste la soo ñu dem si biir ñu ne ga Bois Palma fii dafa bëri cepe yu nice so I have to see dama wàcce xool dama bëgg a gis I wanna see waa kii lu mu def ne waaye dafa pëfu ma lii ki dafa pëfu dafa pëfu <laughs> booy ma nees kaay xool ko mi ngay daw man rus naa sax ma dugg man I wanna see cepe yu nice cepe yu nice ñu ngay may leen ma salaamaaleykum waaleykum si tabu nice noo tudd <laughs> affaire bi bu ma rustoo ngir yàlla rek. man ma rustoo noo tudd Ami. Ami it's not dairy let me. Ami lan ma nekkoon sa taxawaay tey si bi. ah wala caméra bu ragal loolu here is Gambia Gambia nees lay daw. sista bi bu am naa dama rustoo kaay fii am naa dama rustoo. ma loolu man ku ma ma xeel ko ku ma ma xool ko. sa boy bi ma ko wax ko maa ngi ñëw sister bi dafa nice man dama lay xalé bi dafa nice dama dañ leen roo sax bu len faale bay gay daw de yow gamé nga ne déedéet kaay demul man dama interview ñi dama ko interview su bañee dama ko interview dama ko interview sister bu nice no tuda man awal atuda awa awa la moo nekk raison nga tay ci bi am um, tay dama ñew pour am fon maak rakay really yeah maanaam yow yaa ngi sooma ñoom ñoo sooma woon ñoom ñoo sooma waaye man maa ngi enjoy suma sooma bi so la moo nekk reason bi ceeb nga préfère pour ñëw Palma dafa am like dafa lively like ku nekk daf dee mën a ñëw fii xam nga ñu am fun xam nga yaa so am na amal naa la question golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko defee si anglais <laughs> help me please I don't know um, <laughs> dem moom mi ngay daw di wa bu regalo let's go boy bi ma lu mo nu ma nubee xale bi laa xamul lan yeew ma dama laa toppa de dama laa toppa de géej bi géej bi ndox bi ñaata kola la amee kola hmm. la ko dama question trop naa la ko baax question dama ah, la ci ma school waaw ah, man dama school dama dama la ci la ne ko mu ma laaj ma laaj laaj ma debu ma a sister kaay ma laajte. man a dama ñëw pour laajte moo tax ma laaj. waaw man de sa sa man dama toog man. man nag la war a laaj moo ma lay laaj parce que je te laajte de laajte laajte. waaw laajte naa la. yéen a tudda. man Abu laa tudda. Abu daa ma nekkoon sa teewaay tey si bit man lu ma la laajte tontu gu ma si boobu wala si. wax wax ma lu ma la laajte. let's go guys because of us si moom pare wute waat so may loolu daal ñu dem man I wanna see chape yu nice I wanna see bad boys I wanna see them xala xale yi xala xale taxaw ma dem fële laa dem xaay xaay xaay ñii fu dem fële laa dem xaa bu leen ragal caméra bu leen ragal caméra bi sista bi dafa nice ma dama ko like sista you are beautiful est-ce que wax ne la loolu wax ne la da man maa la wax you beautiful noo tudd Kumba No, hold camera, burraga lulu. Fi Gambia la Gambia night. So you don't have to like that. So yang enjoy sa soma bi. Wa ma ko enjoy. Really? So what is the reason yo nga ñew tay ci bij Ah dama ñew pour fond rek. Pour fun Yo kan nga ana ma ngi sey taxaw ni kan nga ana? Dede anduma ken. <laughs> Est-ce que gëm ngeen lolu nona Really? Am dama la amal question. Golo bu jigen ak golo bu goor naka ñu ko dé ci english? Golo bu jigen ak golo bu goor. Yeah, am <laughs> a problem. at least mom taxaw I jaxa yu nice I'm seeing nice nice girls I'm seeing how you nice yi boys in nice yi noo Paul Pogba leen mooy ab tuddee kii Khalil Baye tur Paul Pogba waaw nga jëlal ma Khalil Baye sama doomu yaay. Ah, rapport benn vidéo bu mu war a génne rapport bu ngande su fekkee mic bi am na nga ëppal ma ko tuuti ñu am luñ génne. mu ngi lay naa dégg. mu ngi ñuy jëlal ma mic bi. li ma leen dóor. ay eh, ma ne na ngeen def. Uh-huh. ñu dañoo sonna yàlla mu ñu saaka. mba am ngeen jàmm ay eh, na ngeen def. amu boos. Eh khalila wantra wantra mera may rap boy ngay mer pusal wol ma yobul seras ban si mag ne boy seras sama xel ep boy sama jëm sama rap ni est ce boy bi du dem mala khalil boy xam rap dama si am ñaan sama topé di nga tak ma rap, rap nga dekké gat ma toj nga tek sa beut way ma petit mak boy rap sax tang ci soy sama rim boy ngay joy may rab boy ngay day khalil man rap boy du jay hip hop dina ma fay ah lexi million lexi milliard dun ci aljana soma xolé xamna boy man nit Fatou na Khaly Niass ajana oo ba tey dañu dama kontaan naa si mu ne moom rap la Gambia mu ne moom rap la non yow rap nga lu ne waaye nag rabal Gambian Talents TV. ah acca maa ngi rab Gambian Talents TV jàkkaarloo benn gel dafa mel ni dama ko nopp jëlal nga ma toog si gaas ba sama ginnaaw ñaas li ma am jël ko jox la sama yaay sax du kaas xol bi ma su am borom mais tey yaa moom yaa tax may yokk joom bëgg doon sa baay doom ne ma waa mu yónni baay nga doon sama goro yaay yow laa bëgg dafa leer mbëgg du jaay xola seer yaa nekk sama aay kaa ñu dund paradise jëlal nga ma dox añu mbëri tuur على كيكي ولا موكمون ما دا خراب نا كي ولا مو دا خراب في الغامبيا غامبيا ما دا خراب بالله والله تعالى ما دا خراب فيب ba tey lu ñuy yëngal xam naa ne fii xajul fii mais dañu ñëw pour baaxanteel leen rek ndax daf forom gaal seen ngeen tàmbalee neex na neex na trop mais dañ leen si ñamal rek bis bu ngeen ñu invité ngeen xam ne nii lu ma gaay ñu dem sama compte youtube tiktok instagram facebook su yegge ni bind Khalil Si su bindee Khalil, dañ ma am dañ ma gis sama compte tiktok instagram facebook Dañ dañuy gis numay job sama lepp mu ngi fofu non daal loolu neex na gambia thank you very much let's go so Madam, Gal, si boy si man suma ma interview Jaro nga maa nubatu Jaro nga xeelu xool ko mi ngi daw Jaro nga ma xeelu xoola boy bi resta mu nees bi jëlal ma ki. Ngene? <laughs> ñun ay ñun ay artiste yéen ay artiste ngeen yow naka nga tudd man Zilkaana Zilkaana bàyyi ko mu réew bàyyi rasta bi réew day gën a réew na gën a Yeah. Zilkaana yow lu waral tey sa taxawaay si bi non fi doom si ñëw ne taxawaalu nii rek yaa ma gën xam génn génn bu kott si gel yi <laughs> mu ne ma bilaay akañ ah, li waaw lu tax tey nga bàyyi ba ci nga di Palma non boy ñëw ma ya nii rek yaa ma xam sama gars bilaay. léegi yow da ngay rap kon nga xanaa may gis ngay wut na nii xanaa da ngay rap. non man woykat laa quoi. may ñu boobu benn. may bul déglu waxi noonu sama lova baby bul déglu waxi noonu sama lova bett sama lover baby yo bébé yo bul déglu waxee noonu sama lover baby yo bébé yo bul déglu waxi noonu sama lover yaa ma doon sukkal kon foog ma delloo la njukkal du ma la tooñee nang ma baal ndax mbëggeel bu dëggu mënta ñak réeroo waye lum ci ti doon nan xol ci suni doom saay nga xol ma saga ma mu def ma ay re rusna di la toroxal ci sa kanam nawle manke wo dalu du or ngir lan sama for bi ma def effort te nga soppi doxalin yeah baby girl bet nga ma Yeay. Ya oke oke oke. Ya lo bakal bae mas. Lo bakal bae mas. <laughs> No. No ki ki defa. ki deden, deden. Deden. papa papak bae papak bae lan. No bae lo lay. Lan no hale bi barta bi defa ne man do ma wayal. Wayal Fatou Diouf Gambian talel, wayal ma. Ma wayal lo dudu. Fatou Diouf Gambian talel. Mu da jongam ma. Da nga rafet silise bu la neexee daago. Loolu day la. noonu boobu neex na ma bàyyi ma réew bàyyi ma réew naa si def dara naa ko contacter bu mu ragal loolu ñu dem let's go xale yi mag yi we watching time ñu dem Gambian Talents TV so ñu dugg si biir ñu seet so xale xale naay si gaa ñi daw gaa ñi daw man mer naa man mer naa gaa ñi ngay daw di Gambian Times TV ñu dem man fi gis ay ñu nice let's go xoolal anti yu nice yi si sa jaamu naka la Fama Fama yow da nga nice de yaa <laughs> ma daa la ñu ñaare drôle la Gambia la ka diis so la mo nek alkadi ma yunu dañ drôle la soo ya ni ma nekk nga ñëw si bëj bi tey tey dama ñëw pour let watch liggéey ñëw mu ne xaamat ñëw si bëj bi You summary ni your summer. Yeah. Ah, <laughs> okay, take your time. okay. Para wale. So lama nek reason nga gis beach yep nga prefer po ñoo Palma. Palma because xam ne Palma is the coolest beach. Mm -hmm. Uh-huh. Pepere amul muy lolu dal. So dama la amal question bu ndaw. Uh. Am golo bu jigen ak golo bu gor naka lañ ko dewé ci English? monkey. Monkey male and female. okay, Gambia. Thank you. Farmers Mondoro Wale Bobu Nono Munelan. Female monkey and male monkey. So, ñu dem nee na ma leen a interview ñu ma xeelu ñi daw la yow. ma xeeloo ma xeelu leen. non non ma yeewoo koole. <laughs> yeewoo koole mun naa la xaar ba nga pare ma ragaluma na nga tudd Sira. Sira. dina bàyyi loolu de mu ne ma de so la ma nek reason nga ñew si bij bi tey ya? ah dama ñew fini pour am fon rek pour am fon ya kan nga andal man ak suma friends yi ha hop friends kese la iya. and lo sa ben chuks <laughs> really Dural, fi, dural. <laughs> tuuti la ko dor tuuti la ko dor so la ma nek reason nga bay bi ceeb ya? nga préfère pour ñew Palma ah Palma moo nekk um, comme sooma ma nii Palma Modene. yeah. Palma mo gina live li sudah so dama la amal question golo bu jigen ak golo bu inggris nak lañ ko dewe ci English golo bu jigéen <laughs> mi ngeen daw di <laughs> so moom ne la la mo daw Okay Gambia let's go wañu lu ñu daw lu ñu daw musique wa fa let's go wow

hello ina kan nga nice na nga ya, tudde man dedet yow fu le na dem ina nga daw bay ma nice man dama la na interview de assalamu alaikum anti bu nice anti na nga tudde am lan mo nek reason tey nga ñëw si change environment rek. ñëw changer air da ñëw di somatation nga ànd kan, alaaji a <laughs> ah oncle na nga def. maa ngi fi rek. tour bi. Baboucar. lan mo nek sa reason nga ñëw ci bi ñëw ni tay ni relax ni change air daal. waaw Lo nee naa dégg dama lay amal question Golobujigen, bu ak golo bu naka lañ ko di English. nan lañ ko dee. golo bu ak golo bu naka lañ ko anglais. ci bu ragal loolu anti yu naay si thank you so much so ñu dem ma am suma last question we going we going <laughs> waay soo ñu dem maa fi gis ñu nice ñu nice nice maa fi gis ñu nice xam naa waaw xam Son, pousse-moi au pousse-moi la Gambia man la Fatou Diouf maa leen ñëwaloon tey si bij bi Gambian Talents TV di ñëw nag di waxtaan ak xale yi mag yi ma ne bij bi loo leen sax ibaadu yi sax ñu fi xale yi ndaw yi mag yi ñëpp ñëw di bëggee di def seen sooma with summertime with sister Fatou tey nag question bu ma leen abaloon mooy golo bu jigéen ak bu góor naka leen ko doon wax si english isi neen ñu many questions ñi naan ma monkey ku nekk di wax leneen waaye man daal lu ma si xam golo golo la rek <laughs> golo golo la rek kon boog ba beneen sonde noddu sa xat te quality jas na ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jas na piir ko bëggee fii si biir gambia bi dawal foofu sa quality jas na your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garmi yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala pos abaaya yu yiiw white amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi ra ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice white fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa indi cuuraay cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay makeup product yu quality waxu leen léegi nii foofu sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jas na si 250 01 24 ak quality jas na taaral sa bopp taaral sa néeg waaye bégal sa alaaji aas